loo ay bés yi cour des comptes daal dinay fësal rapport définitif ci anam gi nga xamee ne moom la ñu yoree commune bu Diourbel ci diggante 2017 ba 2020 rapport boobu nag day wone scandale ak caxat-caxate suuf gi nga xam ne def nañ ko fii ci Diourbel te municipalité bu Diourbel bi ca njiit la Malick Fall amal lu nu mel ci cadre de l'exercice de la gestion ak utilisation des domaines privés de l'État public et national mu nekk benn ci compétence yi nga xam ne la ñu jagleel collectivité territoriale yi commune bu Diourbel daf daal di procédé ñaar ci ay lotissement ca Médinatoul ak ca Ndank Seko ci noonee nag ay rëq-rëq daal di koy nemmeeku ca anam gi nga xamee ne ñoom la ñu daal di gérer yooyu la ñaari dossier ay incohérence ci wàllu attribution yooyu la parcelle ci cadre de lotissement complementaire bañ doon amal ca Médinatoul Sud Est bi nga xam ne daf daal di mentionné lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ci ay parcelles yoo xam ne dañ ko jagleel lu toll ci junni ak juróom-ñetti téeméer ak ñeent ñetti doomi aadama mu nekk différence bu toll ci fanweer ak ñett ci ay parcelles ay rëq-rëq yi itam ci anam yi ñuy joxe yooyu le parcelle teg ci itam ay erreur de numérotation ak itam ay attribution de parcelles yoo xam ne xamuñu ñan lañ ko jox nekk na itam lu ñu fësal ci boobu la rapport ñoom cour ba nag ña ngay estimé ne déclaration yi nga xam ne moom la maire bi def ak collaborateur am yi day confirmer ñàkk respect procédure d'attribution bi organe de mais nemmeeku ci commission domaniale bi favoriser wul benn yoon transparence ci ni ñuy joxe li nga xam ne mooy parcelles yi ci ay recommandation moom cour ba ma ngay sàkku ci préfet bi mu daal di assurer ne acte yi ñu approuver dañ ko exécuter tel quel notamment ci wàllu lotissement yi moom cour ba sàkku na itam ci maire bi receveur de domaine bi ak itam président de la commission domaniale bi nga xam ne yor wàllu suuf gi ñu daal di veiller bu baax a baax ci ñu respecter li nga xam mooy composition instance yi ak anam yi nga xam ne la ñuy joxe li moom mooy suuf